jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs média xibaaru digg bëccëg bi ponk bëccëg gën a fës rek bokk ci juróom-ñetti fan euh, ci weeru mars di bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel euh, soxnay àdduna bi ñeent fukki at ñu koy màggal ngir nag ñu sàmmonteeg àq ak yelleefu euh, soxna yi muy fii ba ca bitim réew fii nag ci Sénégal ñu baaxoo it di ko màggal taxaw sedd gi nay dinañ ko jagleel banlieue bu Ndakaaru foofu it xool soxna yi nag kon naka lañu ñu rek taxawee soxna nag bu ñu ko waxee mooy kuy ëmb ëmb nag di imbi moo waral daanu yegg ba ca maternité ba nekk ca jàmm gën ñu ne nag kon foofee ma ngay jànkonte lay jafe-jafe ndax bâtiment ba boo ko xoolee ma ngay bëgg daanu amuñu ambulance nekk ci jafe-jafe personnel it naka noonu bëccëg bi ba tey daañu ko jagle tamit soxna yi nga xamante ni ñoom ñooy daw guddeeg bëccëg di def seen kémt lay kàttan rawatina ak ñay jaay ca taliba diggante te ngee jàpp Sébikotaan liggéey la boo xamante ne yombul uh, ca soxna yooyee ab portrait maanaam nataal it daañu ko indi uh, ni ki uh, tey ji jagleel ko koo xamante ne nag nu ràññee la koo xamante ne bariwul sax lu ñu koy gis muy nag ab dawalkat euh, Dakar dem gi dem dikk soxna la soo xamante ne nii euh, soxna su xarañ la euh, di def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la loolee nag ñu ne nan la koy boole rek boole ak yorub këram beneen nataal ci biir xibaar yi muy nag ki nga xamante ne ni ab arbitre international la fële la ci diwaanu Kolda fa la fekk baax daanu fa yegg Fatou Kiné Thioune lanu koy moom it fekk baax ca diwaanu Kolda gan gi nag tey commissaire Tabara la moom moo yore kàddu police moom it dana daal di dikk ak ñun rek ak euh, yenn tontu euh, ñeel bëccëg bi ñu jagleel soxna yi ba tey mbokk yi euh, lii moo gën a fës ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee ko. dalee na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon ci euh, ndoxteel yi tey nag di bëccëg bi ñu jagleel soxna yi ci àdduna wërngal këpp juróom-ñetti fan ci weeru mars ñeent fukki at ak ñaar a ngi nii nag ñuy xeex ngir àq ak yelleefu euh, soxna yi naam sax bu jéego amee am naay rëkk-rëkk ay jafe yoo xamante ne war nañ cee taxaw euh, bu baax a baax tey nag télévision Futurs Médias yegg na ba banlieue bu ndakaaru maternité ba nekk ca jàmm ndax bu ñu nee soxna nag mooy kiy ëmb di imbi kon jaadu na nag fa ñuy dëgg seen tànk mu nekk loo xamante ne nii lu mucc ayib lay doon waaye maternité boobu ma ngay jànkonteel ay jafe-jafe ndax bâtiment ba boo ko xoolee daanaka ma ngay bëgg a daanu amuñu personnel ambulance it naka noonu euh, Salif Sow la ñu ci àndal. weex am lu vert la te ci loxo ndeyjooram moom mile léegi lay soogee génne ci bureau bi nga xamante ni dañ ko doon xoolee wàllu wér-gu-yaram soxna si dafa wan lor ñu ngi ci maternité bu jàmm gën waaye nee na xelam dalut. fi muy fajoo. ma remarqué mooy dañu xaw a manqué matériel. ambulance non léeg bu ñu amee cas urgence damay dégg mu naan nañu wootee ambulance bi ñëw si Kambaaw. cas yu bëri dañ koy évacuer fii daal accouchement normal ak césarienne la ñuy def mais yeneen ci def dañ koy évacuer. amuñu ambulance fii ambulance bi dafa faan ay ati ata ngi nii maternité bi bagage yu ñuy fajee it dañoo yàgg am yu dem ba xuur li nga xamante ni ñoo fiy liggéeyee tamit seenub lim néew lool. mën nañu une de personnes yu fi ñëw par jour cent personnes yu fi ñëw par jour parce que ñoom dañoo bëgg poste de santé bi. personnel bi gaa doyul moom parce que fu ay nit di ñëw dañuy bëgg personnel boo xam ni malade bu ñëwee bañ fi yàgg parce que malade li koy gën a énervé mooy toog lu yàgg-yàgg matante bi màgget na parce que depuis le temps des colons la mais maire euh, état mi ngi tabax benn bâtiment depuis octobre ba léegi c'était en stand gis naa tey ji ñu commencé waat seen travaux yi donc ñoom dañ leen di ñaan ñu fexe nu matante bu gën a gaawee moo gën fi ñu daal vraiment parce que fii nekk ni màgget na trop màgget na trop matériel bi tamit màgget na parce que lu ñu utiliser chaque jour muy dugg ci ndox di dugg ci ojet day dem ba dafay érodé donc tout le temps di ko renouveler dafay dañ koy bëgg. seen yuuxu wàllu bile am na yeneen soxna yoo xamante ni dégg nañ ko ba sax ñoom dugal nañ seen loxo ngir jàppale ñi nga xamante ni ñooy soxna yuy ñëw fajoo fii te seen yoxo jotu seen gannaaw. chaque année nag dañuy recevoir ay ay ay ay demandes yu bari dëgg yàlla nit ñi dañuy solliciter lu bari pour ay action yu demee nii léegi bu ñu tànnee bu ñu recevoir demande yëpp ci la ñuy def arbitrage en bureau xool wax dëgg neex yàlla ñi nga xam ne ñoo gën a nekk dans l'urgence ñi nga gën a xam ne ñoo gën a sonn ñu xool leen defal leen ay noor terewul beneen yoon dañuy dem feneen ak feneen ak feneen. nañu ñëw dugal seen loxo ci gaaw gaaw ci bërëbu fajukaay bi lay bala ay musiba di fi xew loolu la gaa ñi di xaar fii bërëb bii nga xamante ni daanaka moo gën a sax feebar ñu fiy faj. mangoot ñu yeggit ba fële ca tali bi nga xamante ni moo dox ci diggante Tëngéej ak Sébikotane xeelu nag soxna yi nga xamante ni tamit ñooy daan seen doole ña ngay daw guddeeg bëccëg nag di jaay ca tali bi te ku ne xam ne ne métier la moo xamante ne yombul ndax am na ay gàllankoor ay rëkk-rëkk yoo xamante ne léeg-léeg mën nañoo jànkonteel ak moom muy lu méttee métti waaye tamit doon loo xamante ne rek mënuñu koo ñàkk def ndax kat ca la ñuy faj seeni soxla Ousseynou Thiam par ñi ba àgg jëm ñaajo nag bëri na jigéen ñi nga xam ne nii dañuy jaay ci li nga xam ne lii moom mooy tali bi mu doon yëngu-yëngu boo xam ne bi nag bëri na ay risque loor ak ay jafe-jafe ci kàddu yi ñenn ci ñoom ñi dajeel dañuy dàqante ñoom léeg-léeg da gis ku jël sa ndox nga daw topp ko xam nga rek léeg leen nga mu sànni la léeg-léeg du la jox ci yenn saa yi nga dugg bis bi dem nga daw ba fee nga cëppeelu daan yenn saa yi mu yóbbal ba jëm ñaajo nga dugg si bis bi sa xaas rëcc nga bàyyi client nga perte des fois da nga yëg si bi sa apprenti bu la saaga la des fois ñu am fi ay ka ay sok te xam nga rek mënuñoo toog. mu doon ay jigéen yoo xam ni lenn taxu leen jóg rek lu dul taxaw lii di seen i njaboot. ah métti rek wax dëgg yàlla bëgg lu ñu yóbbu suñu njaboot yi rek loolu rek la waaye loolu la neen. njaay mi moom métti na bu baax ma mais sant yàlla ñu ngi ci am lu ñu suturloo. pour suñuy doom ak suñu borom kër di leen jàppale. yooyu jigéen nag di ñaan ñii di chauffeur yi receveur yi ak aprenti chauffeur yi nag ñu gën leen a bàyyi xel xam ne rek seen liggéey. nuñ koy xewoon ci ndoxteelu xibaar yi nataal la nag bu ñu jagleel ab soxna soo xamante ni ma nga yëngu ah, ci dakaar dem dikk chauffeur la ñaari at nii ah, mu ne ñu koy wax mu nekk nag soxna su jàmbaare nee na métier la moo xamante ne nii yombul naam lu jiitu loolu nag mu nga doon dawal ab taxi moom soxna soo su tey nag mu doon loo xamante ni mi ngi koy boole tamit ah, yor këram Maymuna Njaay moo ko seeti woon. wàllum technique Aïssata Mabel Gaye daf ko yàgg a neex ba muy doon tànk ba léegi. bi mu amee diplôme am ci wàllu mécanique moom responsable bi daal di ñëw bëgg oto mbooleem oto nag ndax kat defoon na carrière ci taxi sisters yi doon ko dawal laata muy ñëw ci bus Dakar dem dikk yi Dakar dem dikk yi léegi miis na ko ba am fa yoonu boppam. bi ma defee nag def loolu yëpp satul ma ne ah, naa tourné si beneen passion bu muy dawal. jour bi ma njëkk a yëg si yi mu ne kaar bu mag. damaa def tour bi dem dellu si <laughs> ma ñëw ma ne sama yaay man du ma dawal bus mu ne ma lu tax ma ne ko non bus yi dañoo rëy torop torop torop douze mètres mu ne ma ko ko dawal mu xanaa gëmatoo sa bopp yow nga fa ne da nga yëfu góor rek nga bëgg. parité électrotechnicien bi buñ koy wax moom gëmu ko bu baax. terewul nag góor ñi daf leen a jox seen place respecté leen te ji jël saa su ne ci seen expérience. góor yi ma nekkal Dakar Dikk aw ñoom benn problème. au contraire damay toog seen biir di leen déglu ñuy wax may dëgg di sàcc seeni i expérience di sàcc si seen i si fi ñu jaar parce que góor ñi fi ñu toog rek surtout transport dañuy wax seen jaar-jaar duma wax dara damay toog rek déglu bu ñu paree seen li ñu wax ma seeg si li ma arrangé ma jël ndaw ñi moom ay Aïssata dafay faral di wax ak ñoom bu muy wax ak ñoom daf leen di xamal nii foog ñu am yar bu ñu bëggee sori ci lu ñuy mënti def. am ne saay xale yi laaj man dama tata ñun dañoo bëgg a dawal man leen dawal yomb na de discipline lay laaj rek boo amee tuuti discipline moom ñu la former en tant que femme nga dem. ci jàppandalu waajuram bu jigéen moom liggéeykat bi mën naa ànd ak xel mu dal bu demee di liggéeyi ndax lu bëri daf ko ciy wuutu. ma ñëwee sonn tëdd mu toog def fonde na ma naanal bu sonn sa bopp man en xaw xëy na ñeneen ñi am nañ yeneen problème mais man vraiment macha allah suñu euh, waa kër au contraire dañ may jàppale. avant na naa dem xew mais depuis ma commencé liggéey dem Dakar dim dikk j'ai l'impression que dañ ma koy tere munu euh, bu ma demee sax dama yàkkamti ñibbi. ci bis bi nga xam ni dañ koo jagleel droit yi soxna yi war a am moom soxna si li mu bugg rek mooy soxna yi. jàpp rek ñu koy jaajëfal bu baax a baax may Maimouna Ndiaye ci nataal bu am solo boobule waxoon naa ko sànq ci teelu xibaar yi gan gi euh, commissaire Tabara Ndiaye la chef bureau relation publique euh, bu police euh, nationale ñu lay jaajëfal bu baax di la nuyu soxna Tabara. maa leen di fay bu baax di leen remercier aussi ci invitation bi. ma ngoog sant nañu la ci wiisi bi tey nag ni nga ko xamee di bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel euh, soxna yi ci àdduna wërngal këpp laata may soobu nag euh, ci dëgg-dëgg waxtaan bi nga xamante ni daañu laal corps police ñu njëkkee rek euh, ci commentaire boo amee loo ci def muy soxna si nga xamante ni seetaan nañu ko léegi muy ku jàmbaare di dawal Dakar dem dikk xam nga nag ja bariwul lu ñu leen di gis ndax loolu ko gisee rek dañoo jàppoon ni góor ñi kese ko war a def waaye yaakaar naa kii moom exemple la. waaw je pense que dëgg la mos naa ko rencontrer sax ci circulation bi euh, donc ñu ñu laajte bu baax euh, ba am ci firndeel ne effectivement jigéen ma doon dawal mu yem ñu bien vrai que policier lañu mais comme euh, de plus en plus jigéen ñaa ngi dugg ci yenn métiers yi. Euh, nekkatul surprise c'est comme boo demee gendarmerie aussi am na pilote bu jigéen boo ñëwee police da ngay gis jigéen ñi di dawal char yi ak euh, véhicule anti-émeute yi donc ay innovation la yoo xamante ni. Euh, nekkatul oto yu mag yi sax dañ daan xool ni góor ñu ñoo ko daan gën di sóobu ko jigéen ñi mais dafa mel ni jigéen ñi ñeme nañ ko. tamit waaw effectivement mm. effectivement léegi jigéen ñi ñeme nañ ko jigéen ñi ñoo ngi koy dawal parce que tout question d'apprentissage tamit jàng la laaj rek mm. donc boo ko jàngalee rek boo ko jàngee da nga koy mën. Mm-hmm. bu euh, ko ma fàttali ngay euh, chef bureau relation publique bu police soxna Tabara euh, police tamit dañu daan xool ndax du dawal Dakar dem di kese waaye police tamit bu njëkkoon xam nga buñ ko tuddee rek wax dëgg neex yàlla góor ñi lañ ciy gis waaye tey gis nañu ni jigéen ñi ñu di gën di intégré corps bi yow laaj bu njëkk bi ma lay laaj mooy nan nga duggee ci ci ci corps police ndax loo. bëggoon la ci sa xol wala dafa am say waajur yi ko doon def. waaw euh, dëgg la c'est vrai que bu yàgg ba nit ci dañu doon wax euh, poli nekk policier liggéey góor la. Euh, ba tax na sax kenn doonu ko woon ñeme def mais euh, su ma jàppee date bi exactement 1982 quand même la la jigéen ñi commencé dugg police. Mm-hmm. donc ak euh, ku mel ni inspectrice générale de police Anna mu nga mm-hmm. xamante ne léegi ambassadrice la. bariwul woon ci jamono waaw bariwul woon ah ak commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Abi Diallo ak ñoom Kodou mm-hmm. donc mu mu doonoon métier boo xamante ni dañoo wax métier góor la mais quand même ñooñu ñoo jiitu donc nekk ay pionnière wan ñu yoon bi. ba tax na euh, nekkatu lu ñu diaboliser léegi c'est un métier comme tous les autres lu góor di doon def la muy jigéen mën na ko def la wala dafa am say yoo xamante ne dañ ci nekkoon déjà euh, waaw man su ma waxee dëgg rek mooy euh, magistrat laa bëggoon nekk si dëgg mhm. mais comme booy màgg quand même da ngay am say ambition mais di nga recueillir aussi avis ñenn ñi par rapport ak sa sa vie professionnelle mais aussi y a le destin donc jouant Euh, ci noonu la la en tout cas la ñu concours euh, police bi un jour ma def ko ma jàllu ko et puis euh, depuis loolu regretté ma ko c'est toujours la chaîne pénale donc benn bi la rek. bi nga ko intégré également loo gis yomb na yombul ci jigéen. yomb na yombul dafa laaj juste organisation en tant que femme booy déglu yenn préjugés yi boo deful ndànk doo doo doo doo gaaw a dem mhm. mais da am sérieux am li nga gëm. ak li nga li nga li nga xamante ne mooy si objectif xam fi nga jëm su boobaa en tout cas lépp lu obstacle di nga ko mën a di ko mën a franchir. mais conditions physiques également. waaw je me rappelle aussi euh, waaw euh, pour certains loolu mooy nekk seen euh, seen seen jafe-jafe dañ la naan concours police bon épreuve physique yi mooy tax duñu ñu bëri duñ ko bëgg du ñu ko bëgg def et au delà même si sa liggéey bi ci waxam day laaj kattan bu baree bare bare mhm. mais di wax rek loo gis tàggat la mhm. voilà même bu dul loolu sax sport dafa baax si nit mhm. donc c'est bon de faire du sport ñëw police def le sport c'est le minimum mais aussi liggéey bi dafa ànd ak loolu liggéey bi moo laaj les épreuves épreuve physique waaye tamit euh, jàng bu am solo ndax dañuy gis également que tamit da ngay gravir des échelons pour jëm ca kanam tey nga nekk commissaire de police également mm-hmm. est-ce que euh, yegsi ci ci ci étape boobu yomb na wala am na itam loo xam ne daf koy laaj. Euh, déjà pour nga nekk commissaire day laaj nga am un master 2. Mm-hmm. donc un master 2 mais disons que le le concours dafay xaw a appesantir tuuti ci ci ci droit ndax xam nga boo ñëwee police li ci bari bari wàllu droit la. Euh, donc côté boobu peut-être diplôme bi moo xaw a élevé euh, tuuti. pour nekk commissaire parce que diplôme bi gis naa ñoo xamante ne aussi xëy na dañ koy xaw a ñàkkal fayda tuuti waaye lu am solo la. tamit waaw waaw am na solo ndax loo jàngul doo ko doo ko mën a tari il faudrait au minimum euh, diplôme bi nga xamante ne moom la ñuy requérir nga am ko. mooy tax nga am base boo duggee école ñu mottali la ak euh, ak yeneen yi nga xamante ne c'est spécifique à la police comme droit pénal spécial yeeg yooyu nga xamante ne police après dañ la koy mottalee ba tax yow boo génnee rek nga nekk fonctionnaire euh, mën a liggéey carrément euh, tey noo gisee taxawaayu soxna yi ci police ndax am na yoo xamante ne war nañ ko jubbantiwaat est-ce que am na ay jéego yoo xamante ne def nañu ko tey bu dee lu ñu war a jubbanti la lan la ak jéego yi nga xamante ne aussi def nañu ko ñu njëkkee ci jéego yi d'abord balaa ñu ñëw ci ñu war a jubbanti. jéego yi ndax am na lu euh, waaw. Mm-hmm. jéego yi peut-être mooy boo xoolee boo jëlee exemple 1982 nga xool lim bi nekkoon ci ci police bi ci jigéen nga xool ko ak léegi dinga gis ne am na am na avancement bu bu bu ngan ngan te tamit autorité bi euh, tegu ci tànkam ndax euh, ba démb rek mi ngi ma naan moom ay mbébétam mooy. ñu ñu gën a yokk intégration jigéen ñi ci biir police ndax am na yoo xamante ne jigéen moo ko mën a def yenn fuy corporel góor jigéen léegi munuñu d'accord góor di fuye jigéen mënuñu d'accord bon kaawu euh, abus sexuels yi comme ay viol yooyu bon bu dee kaawu jigéen la mënuñu d'accord góor di ko entendre donc euh, laaj na tamit ñu gën a intégrer euh, jigéen ñi ba tax yenn question yi nga xamante ne góor mënu waru ko mën a gérer jigéen ñi ñu mën ko ñu ñu mën ko gérer est-ce que ci wàllu tàggatu formation maanaam pour gën a renforcer seen capacité est-ce que foofu également euh, ñi ngi leen ci dimbali bu baax a baax. effectivement donc euh, comme euh, école nationale de police moom fa la ñuy former euh, élèves yëpp. Mhm. loolu dañ ci tàggat non seulement ci loolu mais aussi sur les droits de l'homme ah, ñu ci gën a appesantir parce que euh, contexte bee ko laaj. donc contexte bee laaj ñu ñu ñu ñu tàggat aussi bien policiers yëpp mais aussi jigéen ñi particulièrement ci rôle yi nga xamante ne des fois day différencier ak euh, ak rôle góor yi. Mm-hmm. rôle góor yi effectivement ci rôle yooyu la ñuy wax. Mm-hmm. moo tax sax dinañ wax tamit ci wàllu kaaraange geeg yooyu ndax euh, kaaraange yi léegi gis nañu euh, maanaam fu yëngu-yëngu am. dinañ gis léeg-léeg ñu fay yebal ay policiers yu jigéen ak yooyu est-ce que yéen liggéey bi foofu dina yomb wala daal bu ñu sañoon ñu bàyyi ko góor ñi wala tamit jigéen ñi am nañ ci wàll dañuy gis également bu dara xewee aussi ci bitim réew. lu ci mel ni ay euh, mission yoo xamante ne dañ leen di yóbbu tamit dinañ gis léeg ñu ci faral di jiital jigéen ñi. waaw euh, loolu lu war la maanaam bu dee fii ci dakaar bu may jël exemple bu gën a gàtt rek. Dakar mhm. mooy boo jëlee exemple commissaire plateau par exemple. Mhm. donc lu doy nii palais ak li ko war moom euh, jigéen moo fa nekk muy commissaire maam Ndao boo jëlee Bel nga xamante ni foofu tamit xaw na rëb tuuti commissaire bu jigéen moo fa nekk tamit ku ñuy wax Jeannette Mendy donc pour vous dire en fait métti na méttiwul dépassé nañu stade boobu. donc stade bu ñu toll mooy fournir des résultats en fait donc wane ni ñun ñi mérité nañu mérito nañu ñun euh, fonction yi ñu dénk voilà. Euh, matériel bi doy na aussi également. Euh, waaw matériel bi doy na waaye xam nga loo gis du doy tamit. Mhm. Euh, loo gis yokk rek da cee baax en tout cas ñu ngi matériel quand mais yokk da cee baax. donc surtout ak tenue yi war a war a wut en tout cas pour jigéen ñi nga xamante ne dañoo wan a lor. Mhm. war nañ leen wutal tenue yoo xamante ne ànd na ak euh, seen seen physique. Mhm. donc loolu yëpp ay réflexion yoo xamante ne ñu ngi koy waxtaan ak autorité bi ba tax na en tout cas mu ñuy dégg ñu ngi ciy def ay jéego pour euh, aboutir euh, ci yooyu. mën naa la laaj benn laaj boo xamante ni xam naa du du mën rek maa koy laaj bari na ñoo xamante ni tamit bëgg nañu ko laaj mais amuñu occasion xëy na pour laaj ko muy soxna yi nekk ci corps bi léeg-léeg da ngeen mel ni dañuy mel ni ku leen xaw a ragal tuuti caractère bi dafay ëpp est-ce que loolu yéen a koy incarné ba nit ñi duñ leen ñeme rawatina ak euh, seen morom yi jigéen ñi parce que xam nga jigéen moom day jàpp ne rek jigéen la daal war nañ ko mën a approché war nañ ko mën a ñeme mais léeg dinañ leen xool ngeen ñàng-ñàng boo xam ne duñ leen sax xaw a ñeme ak yooyu. Euh, bon du ñàng xam nga dafa am ñu woowee tamit déformation professionnelle xam nga mhm. boo demee école ñu lay formé ngay mhm. ree ñu ne la bul ree parce que àndul ak liggéey bi. Euh, ngay jooy bul jooy àndul ak liggéey bi. Euh, maanaam nga nga nga digne je pense que loolu mooy tax ba après euh, doo doo nekk nag fu nekk nga ree n'importe comment n'importe où di nga xam na ngay comporté woo sa euh, dépend ci milieu bi ak milieu bu nekk lu mu laaj donc loolu du caaginu ñàng ou ou en tout cas c'est juste je pense pour pour pour pour un tout petit peu qu'on nous respecte. Mhm. mais aussi digne daal dans le cadre du travail. Ah mais sinon amul amul incidence. liggéey boobu nan ngeen koy boole ak liggéey ba ca kër ga parce que tamit naam liggéey bi mi ngi leen di xaar fii ci wàllu kaaraange waaye kër ga tamit beneen liggéey mi ngi leen fay xaar muy toppatoo njaboot ga. Euh, waaw non en fait organisation rek la laaj. Mhm. ndax man damay faral di wax li may def kër ga sax des fois moo gën a metti euh, li may def li may def bureau. il suffit juste ma ma aménager benn brèche rek côté kër ga pour mën a xajal sama liggéey euh, mu am place donc organisation la laaj xam heure yi ngay euh, wàcc yan heure la xale yi di tëdd yan heure la xale yi di yeewu xam heure yi ngay ñëw yooyu c'est vrai que jafe na des fois ak patrouille yi parce que da ngay dem patrouille minuit ñibbi si cinq heures du matin donc boo deful nank euh, am na yoo xamante ni doo ko mën a gérer. mais di ngeen fexe daal ba wareef ba ci kër ga ngeen matale ko tamit. loolu la effectivement dañ daal ba lu ñu war boor bu nekk rek. ñu ñu def ko. yor kàddu police doon jigéen yombu na. ah yombul. waaw yombul euh, dafa dafa bari na bari na affaire yoo xamante ne da nga ko war a jël jël en waaw ndax euh, déjà yor kàddu rek même boo nekkul jigéen. Euh, jafe na parce que yow nit ñi waruñu la mere nit ñi war nañ la dégg ñi ngay waxal waruñu la mere war nañ la dégg donc ba tax na yooyu jafe-jafe daal des fois mooy mooy am dolli ci nag nga doon jigéen. waaw loolu ci nga doon jigéen euh, moom yeneen paramètres yoo xamante ne day day nekk euh, en jeu mais bon alhamdulilah ñu ngi koy euh, ñu ngi koy essayer gérer quand même di essayer fexe saa su nekk ba lu ñu denk daal ñu mën ko accomplir. ban message bu am solo ngay lancer soxna yi ci bis bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel mooy 8 mars bi message bu am solo boo leen di lancer surtout dans le cadre de la police. donc dire juste que 8 mars déjà man pour man du fête. Mhm. journée de prise de conscience la. genre toog nga dégluwaat nga xoolaat sa xel yow euh, depuis fi nga jógee daaw par exemple ba ren lan nga lan lan lañ la defal yow jigéen loo xam ni amal na la njëriñ est-ce que yow euh, euh, ci wàllu par exemple man fi may liggéey est-ce que am na changement est-ce que est-ce que def nañ loo xamante ni man dina ma dina ma accompagner ci sama liggéey man personnellement je dirais oui parce que léegi jigéen ñi ngi dem mission par exemple des Nations Unies ñu bare mm-hmm. bare bare maintenant parce que ONU a demandé 20 pour cent quand même donc du coup prise de conscience la pause a xool fu ñu jugee ak fu ñu nekk nii ndax y a un changement ak fu ñu jëm aussi donc noonu laa Guinée gisee cette journée et puis je, demande aux femmes aussi ma leen di wax ñu ñu ñu gën a sérieuse il le faut euh, ñu gën a gëm seen bopp aussi donc ñu koy jaajëfal bu baax a baax Euh, soxna Tabara Ndiaye euh, nga yore kàddu police waaye nekkit chef bureau relation publique bu police nationale ñu ngi lay jëfal bu baax a baax. Euh, ci wisi bi mu ñeeloon nag bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel soxna yi ci àdduna wërngal këpp bëccëg boobu ci la ñuy des yegg ba fële rek ca Meewaan nekk ca département bu Tiwaawan lu toll mbaa boog lu ëpp junni junni ci ay soxna ñoom nag ñoo amaloon rek ab dox dox boo xamante ne nag ci dal lañu ko def ngir wax seeni i jafe-jafe soxna yooyu nag bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy nag ràbb ay peñe foofee ñu ne nag léeg ci Mali Poro seen liggéey ña nga cee jànkonte lay jafe yu tar Cheikh Anta Diop Sey Latir ci leeral. jàpp sin kan jaar ngaa xam yëmma ndogandu ba cokkee lu toll ci ñetti junniy jigéen ñuy yëngu nag lu jëm ci wàllu ràbb peñe yi di vanneer yi jógee ci commune Meewaan doon wax seen naqar. lii nag tey bu ngeen ko gisee mexe la. ak li ko wër ci biir commune Mewane ci département Tivaouane ci région Thiès. nee nañ ñoom liggéey bi ñuy def de gisuñu seen bopp dafa am ñoo xam ne dañuy jóge ba bitim réew ñëw di ko jënd ci prix yu bon di ko yóbbu bitim réew. suñu rab gi gisuñu suñu bopp rab gi mi ngi dem ba France ñi ci gis seen bopp Amérique di ci gis boppam Espagne di ci gis boppam Maroc di ci gis boppam te ñun ñu koy liggéey gisuñ suñu bopp. te gi li liñ ciy am ci la ñuy jàppale suñu borom kër yi ay partenariat di jóge ca kaw duñu utiliser di dem intermédiaires yi ñooy nekk diggante partenariat bi ak ñun loolu moo ñu tax a jóg ñoo ngi lancé appel bàyyiwuñu kenn bépp autorité ku ci mën a dugal loxoom nga jàppale ñu ndax jigéen ku ko jàppale jaboon nga jàppale. soxna yi sax nee nañ ñoom ñu ngi sàkku nag ci ministère yi nga xamante ne moom moo yor wàllu artisanat ak jigéen ñi ñu jàppale leen. ñi nga xamante ni bii dañoo yor seeni ndimbal xëy na di ko financé jigéen ñi wala ñu yor seen ndimbal di ci jàppale jigéen ñi bëgg nañ ñu jàppale nu gestunu ay jigéen lañu waaye ay jàmbaar lan danoo takk sunuy sër di guddee tëdd lool di teel a yeewu ndax lii mooy sunu bureau mooy sunu bic mooy sunu kaye. jigéen ñi de nee nañ ñu ci bëri de daanaka ñoom ñoo yor seeni kër ne nag seen i borom kër dañoo néew doole ba tax ne lépp lu ñu ci am de dañ koy def. Cheikh Anta Diop ñu koy jaajëfal Ndeye faatu Guissé moom ab député la yeggoon na rek euh, ba Touba xooli nag soxna yi nga xamante ne ni euh, ñoo fa nekk di soxna yoo xamante ni tamit ñu ràññee la ñu foofee ca diwaanu Touba ndax ña ngay def euh, seen kéemtalaay kàttan waaye la mu seetlu rek moom député boobu mooy nag nguuru Sénégal war naa gën a gestu soxna yooyu moo xam ci wàllu financement lu ñu leen mën a jàppalee rek ba seen ëllëg mucc ayib ñu teewlu ko ci micro Talla Touba ku leen gis xam na ci yëngatu rek la ñu nekk ak ci liggéey ku xëyal ci marché yi yaa ngi ci usines yi ku xëyal ci usines yi yaa ngi ci leneen kon tey jigéen ñi dañu nekk jigéen ñoo xam ne tey dañ leen a war a jàppale ñu nekk jigéen ñoo war a xam ne tey dañ leen a war a jigéen ñoo xam ne tey dañoo war a xool ci lan lañu war a mën a def ban yëngatu ci yu bëree bëree bëree bëri ndax jigéen ñi ma gis tey ku leen jàppale euh, seeni gox dana jëm kanam te gox bu jëm kanam rek euh, maanaam ci luy jëmee Sénégal kanam la bokk te ñu xool ne le président la république loolu rek mooy yitteem nu ñu def ba Sénégal émerger kon jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk biir Touba ñu xool ci li ñu nekk ñu xool ci li ñuy yëngatu kon ñoom euh, maanaam euh, jigéen ñen loo xam ne tey euh, luy jëmee Sénégal kanam rek ci loolu la ñuy yëngatu ndax lu jigéen ndaw ndaw ndaw am na ci loo xam ne yaa ngi ci jàpp yaa ngi cee yëngatu kon ñii ñu jare jàppale lañu ci journée bi nga xam ne tey dañ koo jagle jigéen yàlla dogal mu fekk ma fi Touba te may député boo xam ne tey député askan wépp laa député ñëpp laa kon tey journée bi fu waay nekk rek ak foo fekk jigéen ñi rek war ngaa ànd ak ñoom célébrer gannaaw euh, Touba ñu yegg ba diwaanu euh, Tambacounda ak euh, kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb soxna yi jullit ya foofu ñoom nag def na nu ab say ñoom it ngir nemmeeku ji daara foofee jagleen nañu leen ay jumtukaay yu am solo moo xam lu ñuy dundee wàllu basang ba ci nag ay jumtukaay yoo xamante ni di jëm na ci wàllug seetal lépp rek ngir dimbalee leen ko ci bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel soxna yi Ndeye Fatou Mbeng moo wax ci seen tur ñu teewlu ko Adja Aram Thiam sax la ma jéggalu moom moo wax ci turu soxna yooyu teewlu ko ak Moussa Maguette. Birane def œuvre sociale jigéenu Tamba dañu choisir def euh, def choisir ay daara te dañu ciblé ay daara yoo xam ne fa la ñu bëgg a dem dajale nañu ay don muy ay ceeb ay li nga xam ne moom la ñuy soxla ci daara yi ñu collecté nañ ko. ñu moom la ñu war a dem joxe tey ci ñaari daara deux daara ou trois daara. mu ngi def activité yu bari différentes activités lay def ñoo ngi def du social ñoo ngi def euh, volet ay financement di def ay volet denrées alimentaires surtout. bi nga xam ne boobu bëgg nañu jigéen ñëpp ñu jàllale ko ba fii ba nga xam ne jigéen ñi nekk fii ci Sénégal oriental produits locaux yi nga xam ne moom la ñuy produire ñu mën koy utiliser di ko jariñoo ci suñu biir di ko jaay ñu ngi am sax projet central d'achat boo xam ne ñoo ngi ci incha allah maa ngi ciy liggéey waxtaan ak jigéenu tàmbaaye pour ñu def boutique Cofamis boo xam ne day jaay les produits locaux ak denrées de première nécessité yi nga xam ne moom la ñuy soxla ci suñu biir mangoo ko ñu daal di rek addu ci euh, Auchan Auchan nag ñu gis nii ni mu tegee tànk rek euh, ci euh, Ndakaaru ci Sénégal beneen up kon Carrefour ñu ngi koy wax muy Carrefour bi nga xamante ne jàpp nañu tamit fii ci Sénégal dana fi fas yéene rek am ndëgër laay loole nag la commerçant yi lànk ne du ca dal ndax Auchan gàllankoor bi mu leen indil du ñu xool nag beneen up espace bu yëngu ci wàllu njënd ak njaay di leen ko indil fële ca Colobane ñoom commerçant yi nee ñu déet tey sàkku rek ci nguurug Sénégal Khady Ndiaye Modou Diop ci caméra bi. commerçant sénégalais yi tiit loolu ànd ak nakaar gannaaw Auchan Carrefour daal di teew fii ci Sénégal commerçant yi war a yeewu ngir seen survie. ñun commerçant yi tamit yenn saa yi des fois dañuy dund ay jafe-jafe parce que yeneen entreprise yi bu ñëwee bëgg a sampu Sénégal yaakaar naa ñun Sénégal yi yaakaar naa comme Osa lim daan jaay moom bàyyiwul dara. nee lépp lay jaay. dina am lu mu gàllankoor ci suñ suñ commerce parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañuy ñuy kon tey am naa yaakaar ne ku xam ne dañ ko jox mu jiite suñu réew euh, bon lu ñu yokk ñun laa yaakaar ne moom la ñu war a indil mais pas parce que parce que société Auchan man man man man personnellement daal man gisuma maanaam loo xam ne Sénégal amal na ko njëriñ quoi. parce que ñun li ñu doon jaay lépp boo xoolee tey mu ngi biir Auchan tey fii lu ñu fiy jaayee 5000 francs boo demee Auchan jaay la ko 4000 wala au moins moins de 4000 daal. ñuy réclamer nag ab ndimbal jóge ci président de la république Macky Sall ndaxte développement commerce sénégalais du lu ñu war a négliger. suñu sañoon ñun gouvernement bi dañuy dimbale ci ci li nga xam ne ñun maam mu dimbale ñu ñu gis suñu bopp suñu liggéey ñun mais pas mu ñuy indil ay yeneen société parce que ñun ñu suñ bopp sax amuñu liggéey bu bu stable bu bu dox bu baax ba amuñu ko daal kon bu ñu indilee beneen société dama yaakaar ne moom lu ñuy gàllankoor la quoi. Carrefour mu ngi ñëw waaye li ñu ñaan président bi rek moom mu jëm ñu see jàppale comme que ginnaaw yàlla tegaan na ko si réew mi daal mu gën ñu see jàppale gën ñoo gëstu xam ni askanu Sénégal yi ñun ñoo ko fal. ñu tiit loolu ci commerce sénégalais gannaaw implantation multinationale étrangère yi fidéliser say clients doon li nga xam ne day jafe loolu. waaye jot na ngir suñu commerçant yi ñu amal beneen façon bi nga xam ni moom la ñuy tàggat yaram ci la ñuy àddu daanaka rek euh, desaat ci bis bi nga xamante ni moom la ñu la soxna yi di bëccëg bi juróom-ñetti fan ci weeru mars fële ci diwaanu Kolda ñu daal di rek euh, yëri ab soxna soo xamante ne nag ab arbitre international la ñu ràññee ko lool euh, Fatou Kiné cuun la ñu koy wax fekk baax ca diwaanu Kolda li nga xamante ne nag moom mooy liggéeyam la nga xamante ni moom la ca bëgg moom la ca namm na mu ca duggee lépp yeggee na ko sunu naataango ba fa nekk di Abdoulaye jàlloo léegi euh, boo xoolee euh, football jigéen football jigéen moom doxul Sénégal en 2004 laa ne ma ne kon ku football bi doxul Sénégal xaar ma door a def ma dem dem tànn sama sens si arbitrage xam naa foofu moom bu ma fa duggee dinaa ci am dara looloo tax ma yegg si ba tey fu ma yegg waaw fii fii dafa am yombul nag yombul la c'est que dugg ci ay euh, fi nga xamante ne góor yi liggéey góor la dafa metti mais man dama ne man moom fii góor baax na jigéen baax na waaw man moom dama ne lii laa bëgg a def kon damay fexe ba yegg foofu. mais duma xool ni que góor la wala ay jigéen la mais man moom xam ko dama ne arbitrage la ma ne xaar ma dem xool li fa nekk parce que affaire bi liggéey la ak ful ak fayda waaw mooy tax nga yegg fi nga nar a yegg waaw man moom bu may dugg si arbitrage dama ne woon sama ambition mooy dem coupe du monde nekk d'abord arbitre international ba ma yegg see foofu nag euh, ma jékki-jékki toog benn bés ñu ne ma euh, dañ la sélectionné coupe du monde. Euh, kontaan naa ci lool parce que loolu moom ku nekk arbitre arbitre bu nekk moom da ngay ñaan yegg coupe du monde donc bu ñu ma sélectionné d' abord ñu ne ma dëkk bii ngay dem mooy Papouasie Nouvelle Guinée maa ngi naan waa dëkk boobu fu mu nekk si àdduna bi man de mosuma xalaat sa yegg foofu dèjà doon na souvenir souvenir bu nga xamante ne mosuma xalaat ni man dinaa mos a yegg foofu waaw dama ne moom boo jëlee benn carrière nga ne lii nga bëgg def donc da nga fi kaw a kaw fu gën a kawe maanaam actuellement man coupe du monde bi laa bëgg dem bien vrai que bii moom ren ji moom raw na ma mais maa ngi liggéey dinaa liggéeyaat encore pour yegg pour demaat euh, coupe du monde bu gën a mag. ma ngoog ñu koy ñaanal kon mu yegg ci ak jàmm yeneen yi euh, sélection euh, xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye. fa yéen a kaay ñu xëyandool ñett ngi ci yoo xam ne tey xëy nañu tooy xepp ci ndox mi mu di le quotidien l' observateur ak soleil national doo dooree ko journal le quotidien mi ñu xëy xamal ne coow li fi woon jëmoon ci contrat d'affermage bi ñu joxoon entreprise bii di Suez ngir dénk ko séddaleem ndox mi ci réew mi contrat ba far na tàbbi géej ARMP di autorité de régulation des marchés publics nangu na yëf yi bu noppi nag santaane ñu càmbaraat ko def ci loolee ñu naan ci tubaab évaluation financière l' observateur moom it xëy laal ci ndox mi ubbil journal bi yéen a kaay groupe Média bi ci xalima ak Njaga mi ngi ñuy leeralal fa ARMP autorité de régulation des marchés publics jóggi ba annulé marché bi bi ñu ko càmbaree ak it jëfi yuqu njuur yi ñu ci gis ñu gis ba tey ci xët mu njëkk soleil national mbiru ndox mi waaye ci weneen wàll ngir bëgg askanu Sénégal mën a amee ndox mu doy ndox mu set ndox mu sell ndox mu doy surnal bi nee nañu moo waral ba ñoo ngi tabax yeneen juróom-benni forage tojkat bi mu di maître Madické Niang Dickson moom la Vox Populi xëyee yéenekaay bi nañu da doon gisee démb ak jigéen ñi ko doon jàppal tànk ci wote présidentiel yi ànd àndoon ak moom ci coalition Madické 2019 maître Madické Niang ca ndaje ma fa la waxee ne ñi doon yàq sama der ak doon ma sosal ak di ma waxal lu amul ñoom ñëpp baal naa leen Vox Populi nañu maître Madické teg na ci ne tey buy élection amaatoon ci réew mi moom pare na ngir soobu ci te bu boobaa dañu koy gañe ki gañe di Macky Sall kenn ci aw ñoñom mu di El Hadj Dia responsable APR ca Bambey mi ngi wax ak nit li ak di leeral ci direct info li tax ba président makki Sall gañe Bambey ci élection yi El Hadj Dia ne waa Bambey dañoo xam ne ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee ab reer nga war koo gëm président Macky ak li mu liggéeyal askanu senegal moo waral waa Bambey am ci moom ak kóolute liggéey na fi lu ci mel ne PUDC PSE di plan Sénégal émergent bourse familiale yi piste de production yu bari yi mu tabax ci réew mi ak yeneen réalisation El Hadj ne moom dafa masa nangoo doon doomi Bambey moo tax lu mu bëgg ca dëkk ba da koy yomb njëgu Bambey nag wala fi nee nañu tuut te teew moo tax mu jàpp ne élection yi ñu jëm mu di élection locale y dañu koy gagné ci lu amul benn werante ndax président Macky Sall ab liggéeyam ci réew mi xool gis la lambu nekk askan wi fekk si ko ci fekk leen ma ci la tribune soleil national l'observateur les échos réwmi quotidien source a direct info ba ci le quotidien ñoom ñëpp ñoo ngi ci bëccëgub tey bi ñu jagleel jigéen ñi mu di journée internationale de la femme la tribune talaatay ndeer la xëyee source a xëyee jigéen ñoo xam ne li ñu nekk di ca liggéey ñaare góor ñi lañu ñu ci daan gis ku ci mel ne Anna Sémou Faye capitaine Mame Rokhaya Lo ministre Maïmouna Ndoye Seck ak Abi a doon policier ci mim réew soleil national xëy jël page septam jigéeni réew mi dem ba di ñu xamale ak capitaine Mame Rokhaya Lo jigéen ji njëkk a dawal avion ci Sénégal l'observateur mel ne ku naan leen du ngeen ma ko dàq bésub tay bi di mars journée internationale de la femme yéenekaay bi mi ngi ñuy wax jigéeni réew mi seen engagement ci wàllu politique politique kat yi doon campagne fan yi ñu génn journaliste yu jigéen yi leen toppoon doon couvrir seenub campagne am na ñenn ci ñoom ñu yéenekaay bi dajeel ñoo ngi nittali nañu dundee campagne A ba ci TV Jaw Mbooc bu direct info moom la journal direct info xëy guddi yi ñu toll moom rek mooy jigéen ji doon directeur de publication journal ci Sénégal Aboubacry Kane mi xëy di sargalaka tàggaka bàkkaka kañaka màggal Jaw Mbooc mi ngi ñuy junj ci xët mu njëkku yéenekaay bi lana ci ay jaar-jaaram jamonoy journal le matin ba direct info jamonoy rubrique entre femmes ba ci directeur de publication lépp a ngi ci journal bi jigéen ju manoon góor ñu bari te xaaru fi bésub jigéenu tey bi di 8 mars l'observateur xëy na ko jox Mariane Siva ma newoon ca TFM te faatu bu yàggul moom la Mariane Siva Diop borom Al-Mominina L'Observateur wax nañu lu bari ci moom wax ko ba xamatul lu mu koy wax mu far ni ko au revoir Taïfin ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye njaay yi fii la ñuy tàggatu yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti di dellu rek di sargal eh, jigéen ñi ci bëccëg bi nga xamante ni moom la ñu leen jagleel ni kii tey ji rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar.